questions. Euh, bon, pour le moment, on n'a pas de problème majeur. Aucun problème. On a 212 candidats. Avec euh, absents. Seulement, tous les, tous les autres sont là. Ils les jugent abordables. Nous, avec les élèves, on ne peut pas se à leur dire. Chacun de dit, oui, c'est abordable, c'est abordable. C'est après la correction qu'on va pouvoir donner un avis sur la question. première épreuve de macha allah méttiwu de français lañ doon def lañ defagum instant yi nii français TSQ waaw ak dictée. yooyu c'est assez ah, abordable. mënuñu am ku gën a yomb de moom. non non. ah. ah j' espère kay bu yeneen épreuve yëpp mel na ni comme bu français bi moom incha allah dina baax. Merci beaucoup, monsieur Oumar. Euh, euh, c'est une situation boo xam ne c'est déplorable euh, métti na lool euh, de toute façon après la pluie. Euh, la cour a été envahie complètement partout il y avait de l'eau surtout mais il deux salles yoo xam ne moom fi la ndox bi dugg yeneen salles moom duggul mais cour bi moom c'était rempli alors immédiatement avertir nañu ñi nga xam ne ñoom lañu war a avertir c'est-à-dire euh, wax nañ ko mairie fexe nañ information bi yegg mairie fexe nañ information bi yegg aussi au niveau des inspections alors euh, li ñu laajoon mooy est-ce que accès bi au niveau est-ce que salle am na ndox may leen deux ou trois salles ñoo fi am ndox donc il nous restait suffisamment de salles loolu ci veyu bac bi la euh, après mairie envoyé nañ fi hmm, camion di moins euh, moto pomp boo xam ne pompe na pendant deux jours voir trois mais dimanche defe naa ci guddi dañ ko fi jëlee j'avais di non samedi ci guddi. waxoon naa gaayen bi ne ko nag lundi matin aussi BFM bi day enchaîner mu ne ma waaw dinañ ko pompe mais après xam naa ne jël nañ machine daal nee nañ ma yóbbu nañ ko si cimetière yi je crois que fi nag moom moo doon priorité bi. waaw exactement bon plan ORSEC moom comme wax nañ ko mu coïncider ak période examen je crois que c'était pas au chef d'établissement dire que lii mooy priorité bi loolu ku ne xam na ko fi nga xam ne foofu la xale yi war a dem composé enseignants yi war fi ñëw di dem ci classe yi. oh surtout bac bi ay mot man maa doon jël ay briques di teg pour que enseignants yi di si dox ci la ma miir bi fekk d'ailleurs j'ai porté des bottes ak ay gants di uti ay briques di teg pour nit ñi mën a jàll accéder sinon da ngay patauger parce que ndox bi day ñëw ba si genou bi je crois que lii moo doon priorité bi bon mais nag on n'y peut rien ñun finalement dem nañ bay xalaat ne même su dee dañuy dem lépp benn moto pompe sax indi ko si école bi parce que comité bi waxoon na ma ko ñu ko fii même suñ koy fay après ñu loolu fii moo doon priorité bi. mais malheureusement gisuñu dara en tout cas on a informé tout le monde ñi waroon informé. Mhm. officiellement on n'a pas encore reçu de notification officiellement. non non je pense que l'examen est un est une affaire très sérieuse. la faire pas faire passer les résultats par les radios communautaires pourrait être une bonne chose mais après coup parce qu'un résultat un examen on doit l'afficher que les élèves puissent s'imprégner. pouvoir venir contester. C'est vrai qu'ils veulent éviter euh, la floraison d'élèves de, de, de, de au niveau des centres, mais aussi il faudrait qu'on garantisse aux élèves euh, des conditions normales de travail, des conditions normales de prise de résultats, des conditions de préparation du second tour pour ceux qui doivent le faire. Donc je crois que utiliser la voie des radios communautaires pourrait être une bonne chose s'il n'y a pas d'erreur. Mais avec le bac, on a constaté quelques erreurs. Et si on y prend garde, compte tenu du nombre plus important de candidats au BFM, on risque d'avoir beaucoup plus d'erreurs qu'au niveau du bac. Donc je crois qu'il faudrait aussi qu'on qu réfléchisse un peu plus sur le procédé et qu'on prépare davantage les candidats à ça. Ah, on a parlé de choix pour rassemblement bi kay dañ ko def SMS rek kenn xamul wala ñoom lu ñu décider rek baax na nañ ko ñun l'essentiel nañ jot nañ jot résultat yi rek. ci examen yi le bac on a vu que y avait une méthode bi nga xamante ne moom lañ doon délivrer les résultats. Mhm. ça n'a pas marché à 100 pour cent parce qu'il y avait beaucoup de réclamations. Mhm. est-ce que tey jàpp nga te aussi BFM bi war nañ suivre les mêmes méthodes. je ne pense pas parce que xam nga après examen élève bi day nekk sous pression. il doit connaître son résultat. su leen ne SMS yi niñ ko promettoon booy immédiatement à la sortie des résultat dañ leen ko mën a transférer du nekk benn problème mais malheureusement loolu mënuloon nekk parce que président yi bi ñu paree dañoo envoyé liste avec les numéros mais xale yi toog nañ ba le lendemain jotuñu benn SMS fii xale yi ñëw bugg a fees si école bi te li ñu doon bañ mooy regroupement ma ne leen afficher les résultats. après bi ñu communiqué si rajo yi parce que rajo communautaire woo nañ leen ñu wax ko mais booy bari dégluwuñu ko am na ñoo xam ne amuñu rajo ñu ko donc dañu ñëw bëgg a xam seen résultat quest a fait dañoo afficher pour xale yi mën a xool donc su dee méthode boobu lañ defaat ci BFM bi aussi regroupement bi ñu bañ mën na am te comme cours yi yaatu na ñun mën nañu gérer loolu ñaari jury la benn bi day toog fii xale yi ñu tas leen ci cours bi ñu wax li ñuy wax affiché ñu xool progressivement seeni résultat dem ñu def la même chose avec le jury mais su dee ne ay SMS rek la xaar xale yi du ñu génn se école bi tant que xamuñ seen résultat parce que nag psychose bi ñuy dund looloo ko waral waaw vraiment <laughs> li amoon si bac bi moom nañ fexe ba mu am si BFEM bi. bon dire si les élèves ont le niveau pas est, une question un peu délicate mais on peut quand même dire que l'enseignement c'est un processus on évalue un enfant au bout de quatre ans. Ils ont perdu trois mois sur les quatre années. Peut-être on va parler plus de contexte socio-affectif que de niveau. Parce que généralement, les enseignants ont l'habitude de terminer leur programme, surtout quand ils sont en classe d'examen. Maintenant, au niveau des classes intermédiaires, quand le programme n'est pas achevé et que l'année est complète, on fait des remédiations. Mais cette année, on n'a pas eu le temps Mais les élèves ont quand même assez travaillé et ils sont plus ou moins pour faire Maintenant, reste à savoir comment aborder le reste de, de, de, du travail. Parce que mon dernier mot, c'est souhaiter à tous les élèves une bonne réussite. Souhaiter aux parents qui ont un candidat à ce que leur candidat réussisse, mais aussi souhaiter à mes chers collègues qui ont bravé toutes les difficultés et qui sont venus faire l'examen malgré toutes les contraintes. Je leur souhaite un bon examen, je leur souhaite de bonnes conditions Et je souhaite aussi que l'État jette un regard beaucoup plus affectif sur les enseignants et leur donne quand même tout ce dont ils ont besoin pour remplir correctement leur mission. Parce que ce n'est pas évident. Il y a des malades qui sont déplacés malgré la pluie, le mauvais temps. Vous voyez comment la cour est inondée. Des pères de famille, des mères de sont là. Chez eux, on ne peut pas leur demander de travailler dans l'eau. Pourtant, ils le font. Pourquoi Parce qu'ils sont patriotes. Parce qu'ils veulent servir la

pour retourner dans les classes. Donc quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. Voilà, monsieur Diallo, les quelques impressions que je voulais donner en réitérant mes profonds encouragements à tous mes collègues, surtout les jeunes, qui viennent d'embrasser la carrière et qui ont besoin de surmonter les obstacles. Je vous remercie. waaw sama dernier mot mooy di la gërëm rek parce que yow da nga ñëwaat sa école yàgg nga fi liggéey nga fi ça ne m'a pas surpris nga ñëw di def job bu mel nii je sais que maa ngi lay souhaiter une bonne continuation euh, yàlla defal réussir ci li ngay yëngu waaw di ñaan aussi nos autorités toujours euh, ñu xool ñi nga xam ne ñoo war exprimer le vrai besoin ñu xam leur priorité pour que ñu jël ko mën ko jël en compte waaw ñu ngi sant ñëpp mairie bi nag mu ngi def effort vraiment machine bi fi ñëwoon moom moo ko fi indi mais defoon naa dafiy toog ba examen yi jeex parce que machine boo xam ne yaa ngi ko teg mu nekk ci biir ndox ndox bi jeexul nga jëlaat ko yóbbu ko feneen loolu moom beneen affaire la quoi. man daal je ne peux pas comprendre j'ai appelé le gosse nee na ma dina ñëw maa ngi remercier ñëpp en tout cas on va essayer de faire vraiment ba affaire yi jaar yoon ba examen yi xale yëpp def seen examen jël seen résultat ñibbi si jàmm ak salaam merci beaucoup.